Euh, maa ngi tudd imaam Ibrahima Ly nekk euh, adjoint imaam ratib imaam Khalifa Babacar Tall yal na ko yàlla yàggal sunu kanam. Euh, ci grande mosquée bu Bambey ginnaaw bi ñu waxtaanee diisoo waxtaan ba juboo daje nañu ni ren tabaski bi fas nañu yéene julli ci sunuy kër ñaan képp képp ku doon julli si ci jumaa ji na nga julli ci sa kër ndax ñu bañ a may coronavirus bi nu muy yaatoo ndax maanaam kaaraange. réew mi kaaraange dëkk bii di Bambey uh, imam Khalifa Tall imam su demee ba noveur et demi jot dina rendi xaram tabaski ñi nga xam ni ñoo doon roy ci moom ci dëkk bi yépp bu demee ba 9h40 jot euh, fekk imaam pare na rendi ñoom ñëpp mun nañu rendi seen xar euh, ñaari ma maanaam julli gi nag ñaari raka la pour ku nekk def ko ci sa kër euh, raka bu njëkk bi maanaam juróom ñaari kabbar la boo ci boolee kabbaru armal bi nga teg ci fatiha ak saar man ñaareelu raka bi juróom benn la boo ci boolee kabbaru jogaale bi bu ko defee nga jàng fatiha ak saar imaam mu ngi yëgal ñëpp nañu julli ci seen kër ren duñu julli mbooloo tabaski gi ci jumaa ji mu ngi ndokkeel ñëpp di baal ñëpp xaq di leen baal yal na yàlla boole ñu baal saxal jàmm ci réew mi yal na yàlla saxal jàmm ci réew mi jërë ngeen jëf